te loolu nag dafa mel ne dafa sof comme ni ma ko waxee waaye dafa dafa doon ndigal ndax dafa mel ne Sëñ Tuubaa moom ci njabootam ku ne ku ne rek am na foo xam ne faral la gënoon a féetale te moom bi nga xamee ni yàlla dogal na muy gisam bi mujj ak Sëñ Tuubaa ci njaareem mm, ni nga ko xamee mm, suñ bi defal ko ay teraanga yu baree bari yoo xam ne ñoom ñaar rek la ñoo ko seq ba mu noppee laaj ko ne ko teraanga yi ma defal yëpp ndax xam nga lu ma jublu ci la ko suñu am sa tontu ne ko ah de xam na mel na ne euh, xamu mel na ne xool na xool waaye daal xamu ko lu mu ci loo jublu suñu ne ko dama bëgg nga am teraanga te bëgg nga fonk alxuraan ci di ko jàng ak di ko jàngale. te boobu sëñ mi ngi toll ci beqi mhm. kon de mel ne loolee ko sëñ Tuubaa waxoon mm, bi nga xamee ne yàlla dogal ne kër gii nga xam ne loolu ko sëñ bi woon tabbi loolu daal di jël moom def ko ab liggéeyam di ko fi dundal di fi jàngale di fi yar mhm. xam nañu sax ci nekkam kër gi moom suñu son bu daaw fi dalal nit eh, ba ci màggal yi lu muy lu lu lu mbooloo bari bari gan gu ne am na kër goo xam ne wutuloon na la ko ci kër yi ko wër ci kër taalibe yi nga fay dal waaye kër gi moom daar la ko jàppoon ba tax na da gone yi rek ñoo fi nekkoon daaw fi dalal kenn jàngale ak yar yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi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 لا زلت ضيفا كريما سائرا أبدا مكرما بخراعات والسدد معزما عند رب لا شريك له وعند التقى والعلم والرزد لا زلت معي أو جار وقادي أو تار وتارد أقيار من الخلد وزافدا كل سيتان بما مححو ومضعفا لسوي النشان بالسبد ومزعبا كل أعشان نديخ بها في دهر أفئدة يا مشب النكدي

ñaanam dafa nangu ba mu ñaanee borom bi ne ko waccaxal jamii al muslimina turra lana axilla fa fa dura moo taxoon ñëpp daan ko wuy si di ko di ko di ko di ko seet di ko siyaar ñoo ngi kon ci Daaru Xuddus bokk ci barab yi sëñ Touba sañ ci gannaaw Touba bokk ci ñett yi ñu leen tànnaloon fii nag daan na fi nekk di fi def ay xeeti jaamu yàlla sëñ Moustapha Diop dana ci indi ay leeral bu ci kanamee fii ci biir jàkk ji xam moo nekk ci Daaru Xuddus fii nag ñoo ngi bay ci nag di gaañ yi xam ne moom la sëñ Touba yóbbaale woon ci tukkeem bi ci géej gi waaw fii mooy Darou Khoudoss kër gu nga xam ne gu ràññiku la ay jeexit yu bari nekk fii bagage yooyu ngeen seen yëpp ci la bokk ak yeneen yoo xam ne xëy na feeñut waaye jàkk ji nga xam ne it fi la duggee woon xalwa te sëriñ Mbacke Madina yeesalaatoon ko it foofu la nekk fii la waaj waajale tukki géej gi kon. ci jàkk jooju la ñuy defee waxtaan wi ak sëñ Moustapha Diop bu ci kanam. وزعت بحبك وبسات يا أملي وكن عبيدي يوم الحول والكمد إني أحبك يا شهر الصيام بلاد كسن فعالا وترحيبا بلا عدد ني زياري في سيري احمد المختار دي خليفه دار القدس ني نانال طالبي كون بيتي كانامي كون ني ديغلو وقتان في موي فيغا خامني في لا جيسيوون اك يونت بي صلى الله عليه وسلم تي برب بي نو توك تاي موي جاكاي دار القدس في تام موي فيغا خامني في لا بايكو وون yëngatu ngir fas yéene jóg doxi doxam boobu nga xam ne ci la ñu jereña ci lañu amee ñun ñii li nga xam ne moom lañu am te it moo waral bis bi nga xam ne tey moo tax ñu daje fii ci Touba di ko santale boroomam moom Serigne Touba ridwanullahi alayhi euh, bis fii nag di barab bi muy Daarul Xuddus Serigne Moustapha junj na ko léegi. ben la ci barap yi nga xamne Serigne Touba ridwanullahi alayhi daf ko sampon fi ci Touba muy barap bo xamne itam daf ko jagle lon xilwa muy di wetal boromam fi la dan dugge xilwa di wetal boromam fi itam moy fi nga xamne fi la gisee won ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam deug le dëkk bépp lolo ko taxawna na ndax serigne bi da fay wax ne dëkku Touba moy bi ko gënal ci moy suuf ci ko gënal ci aduna si nee na li ko waral itam ni ko Cheikh Mouhamadul Bachir nettalee mooy yéene ju sell ji nga xam ne moo samp dëkk bi tey te mooy yéene jaamu yàlla kese kese kese yoo xam ne dara àndu ci ak yar ñi nga xam ne ñoom la àndal. yàlla dogal barab bi kon muy benn ci barab yooyu nga xam ne moom la sampoon fii daan fi nekk nekk fii itam ab diir boo xam ne takku na ndax dana mat ñeent ba juróomi at yoo xam ne daan na ko nekk fii. daa fi ñëw waxtu wu nekk ginnaaw bi mu sancee këram gi di Touba fii jumaa ji nekk tey teg ca ñaari at jëm ñetteelu at ci la sanc nag dëkk bi mu wala barab bii ñu nekk tey muy Daarul Xuddus euh, euh, li nga xam ne moom lañ ci wax itam ci barab bi mooy lu bari ci ay jeex yitam mi ngi fi ni nga xam noonu lañ koy séene nit ñi di ñëw di ko ziyaara si jeexit yoo xam ne moo ko fi bàyyi woon jeexit yoo xam ne ci géej gi la ko jële itam am na fii ci biir barab bi Euh, yàlla dogal barab bi itam ni nu ko junjee léegi mooy fi nga xam ne fi la sëriñ bi yëngutoo ngir fas yéene jóg dox doxam boobu nga xam ne moo indi lii am tey te fi la jóge ba mu fi jógee ginnaaw weeru koor woowee daal di dem sañc Mbàkke Baari te la saxoon lay il sañc Mbàkke Baari ja doon woon lenn lu dul rek fii nga xam ne fi la nekkoon ni ñu ko nettalee moom ci boppam moo ñaanoon suñu borom sangeen ko dëkk bi ba lenn baa ngi du fi dugg mukk du fi tàbbi lenn luy niru ay naqaral wala mettit wala tiis du mën a yegsi ci moom fii mu ngi nekk ci biir dëkk bi moo taxoon mu am digalul daal fi bàyyi ko dem ca Mbàkke Bari ba mu fa nekk itam diir sa gàtt gàtt ni ñu ko déggee ci làmmiñu Cheikh Mouhamadul Fadil la fa am luy toll ci ñetti weer ñeenti weer daal di fa bàyyi ko nag ci yoon wi kon ana lu nu yitteel foofu mooy yoon yi nga xam ne moom la sëriñ bi sóobu. mu yoonu géej gi lan mooy li nga xam ne mooy yoonu géej gi ak lan lañ ci mën a jariñoo yoonu géej gi sëriñ bi ci boppam moo ko tënkal boppam wax ne li nga xam ne mooy sababus génn gim génn dem ci réew yi sori ya génn gim génn nangu ñu tumuraankeel ko mu daj la nga xam ne moom la daj te loolu lépp da loo xam ne daf ko jaayante woon ak boroomam ngir la mu séentu ca ginnaaw ci ay yiw la mu séentu ca ginnaaw ci ay xéewal lolé di lo xamné lu rëy rëy fi mom la ba tax nanguwutut xol wenn tiis wala wenn nakar wuñ koy tek lolé lépp nekk lu tukki moom yoonu géej gogou sëriñ bi mo teunk wax ne nangam ak nangam la ana nan la ko waxé mom sëriñ bi mo wax ne ñetti mbir moy ye nga xamné moy sabab yoonu géej gi mo wax ne sababu xaybati an allah arada an anala minhu jaha wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi mu ne li waral mu génn ngir dem ci tukki bi géej gi nee na ñetti mbir yi dong la mbir mu njëkk mi mooy lan mooy wut daraja yu kawe ya nekk fa sunu borom te sunu borom di ko may ñi nga xam ne ñooy borom dogg yi ñooy borom pastéef yi ñi nga xam ne ñooy borom yitte yu kawe yi ñooy xool fa kaw ñooñu la suñu borom dencal daraja yu kawe yooyee moom nag mu bëgg boole boppam ci ñi nga xam ne ñooy am daraja yu kawe yooye ci biir bindee fii te ñuy ñu néew a néew. loolu kon mooy li nga xam ne moo ko yëkkati woon te daraja jooje lépp loo xam ne nar naa dox diggam ak moom mu fas yéenee fànq loole mu fas yéenee euh, jéggi loole ngir yegg ci daraja ja kon mooy bu njëkk bi mooy an anaala minhu jaaha muy am ay daraja yu kay fa boroomam te loolu nekk loo xam ne nii nu ko xamee noonu ñëpp coono la laaj tiis la laaj fitnal la laaj ndax kat sunu borom subhaanahu wa taala moo xamal bindee fi ne leen du ngeen. ma gëm mu dëggu ci yéen mukk luddul ay nattu ak tiis day tagge ci seen kaw ndax loolu moo leen di wane moo leen di feeñal wane seen pas-pas ak seen tolluwaay dëgg-dëgg moo wax tax moo waxoon ne ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun waxaat ci ne wa laqad fatanna alladina min qablihim fala la yalamanna allahu alladina sadaqu wa la yalamanna alkadibin nee na xanaa da ngeen ne yaakaar ne rek gëm naa rek yam ci ma bàyyi leen noonu mooy am déedéet faw ñi nga xam ne ñoo gëm nag faw ma seet leen set len ba xam fo fum tollu deug deug fi feñal len wane wane sen tollu way deug deug euh motax lola tayit ñi fi jiitu won foofa la da jaar ak ñom ay yu bare bare yu mel non nak ñëw na ci alquran am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى zulzilu الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب بن لا ci aay yooyu ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne suñu borom daf ci wane rek ne ñi nga xam kat ñoo gëm dëgg-dëgg faw suñu borom di leen teg ay nattu ak i tiis te benn mooy bii ñuy wax léegi kon mooy lan mooy am daraja yu kawee fa suñu borom bokk na ci yi ko yëkkati an anaale min ujaaha wa an akuna shafian li xaw mi mooy bu ñaara bi mooy lan li ma yëkkati nag mooy nag yëmuma rek ci daraja yu kaw yooyu ngir doyloo ko am ko man fi sama bopp déedéet waaye nag mooy loo xam ne daf koy def tukki boobu ngir man cee ràmbe ñi nga xam ne ñooy aw nitam te suñu waxee aw nitam jéggi nañ ak njabootam jéggi nañ sax ñi nga xam ne ñoo ko waroon waaye ñëpp ñi nga xam ne mën na leen xettili su ko defee mu taxaw temm ci xettili leen génn li ci lëndëm lëndëm yi nga xam ne moom lañu nekkoon kon loolee itam suñu borom euh, bëgg na ko te ñaan na ko suñu borom mu xamal ko ne ko ci tukki bii natt yi ñu la ciy teg bokk na ci yi nga xam ne moo lay li nga yegsi ci barab boobu kon bokk na ci li lay may nga mën a ràmbu saw nit te bokk na ci li nga xam ne moo doon sabab boobu muy wa an akuna shafi'an li xaw mi foofu itam ñu taxawlu fi tuuti ndax euh, euh, sëriñ bi jamono yi mu fiy nekk wax dëgg ñii nga xam ne ñoo ko daroon mbooloo lañ woon moo xam ne nit lañ ñu kiimaane lool ci wàlluk mbaax nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla moom fa mbaax yam fa lañ yem ña nga woon ca ginnaaw sëriñ bi dar ko topp ko di digg léppam sëriñ bi ci boppam ñooñee mu nekkaloon waxuma la loolee mu ànd ak ñoom ndax mu àndoon ak ñoom ci yoonu yàlla jiitu leen ñoom itam ñu topp ci moo tax ñoom ña nga àndoon ak moom déglu ko ci loolu waaye la nga xam ne moom la aajo woon itam ci mbiri àdduna ma des naa wax ne su fekkoon ne moom dong la ñooñee mënal nañ ko ko ak njabootam bu fekkee itam lépp luy wut am koom la mbaa mbaa mbaa poñetum àdduna waxee waxaaseelu waxee waxee su ko sax moom loolu lépp sëriñ bi ci bopp boppam amoon na ñoo xam ne ñoo ko koy euh, defal waaye nag loolu taxu ko woon a jóg am na leneen lu muy séentu lu ëpp loolee gën koo duun talole loolee mooy li wax leg muy cirub sunu borom subhanahu wa taala tayit ku mag deug deug lu mag rek lay xol ku mag deug deug du xol mukk lu tuti ta yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax mo wax lol yàlla bëggul mbir yu soufey yu tuti yi dafa beug mbir yu magi yu kawe yi motax mom lu kawe la don xol moy am lu doy seuk seuk lo xamne man na ci xeetali mbolam binde fi motax tax wa an akuna shafian li xawmi joju ndax su fekkone mom dong la moko njabotam dayon nako mu tok fi waye lolou yitteelu ko ku tal ne sëriñ bi wessuna fof kon lolou ben ñaarel bangi non muy wa an akuna shafian li xawmi ñettel bi tam muy wa an akuna khadiman fi dawmi euh wa an akuna xaadiman fii daw mi nag mooy sëriñ bi ci bopam garat bi nga xam mom la tak muy nek khadimur rasul wala khadimur rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam garab la boo xam ne yombul waaye mu tàkk ko ba noppi itam bëgg caa sax saxoo loole nag mu nekk fii moom ba faw nekk ci biiram ba faw dootu fi génnati moo tax menn mag da daan wax ne euh, euh, wa an akuna xaariman fii daw mi nee na loolu sëriñ bi daf koo bind waaye li ñuy wax tawriya ci làkk làkku arab moom la ci jëfandikoo te tawriya mooy lan mooy wax baat boo xam ne day mel ne ki maanaam ma ca kaw la nit ñi di dégg te fekk am na maanaam mu ko suufu mu ne ca biir moom moo la tax a jóg kon waa ànd ak kon xaadiman fii daw mi ñenn ñi dañuy jàpp rek ne xëy na dawme me gam nekkoon rek nekk fa di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca daw me loolu la ci jublu waaye te tawriya la muy am na maanaam mu ne ca suuf moo xam ne moom la sëñ bi nam ma feeñal te mooy lan mooy saxoo ko daw ma googu mën naa nekk dawme me gee waaye mën naa nekk itam saxoo gi mu saxoo takk garaat boobu muy garaatub xaadimu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam non mu ko defé ci yeneeni beuyit bayit ni ko men mak di waxe batay waxe wax ne ni ko waxe ne lahul tazamtu ma alayya yalzamu wa qaada li luzum ma la yalzamu mune dama warlu sama borom li nga xamne mo waron ci man lépp ma saxoko ko def ko nimako ware suñu borom dem sax ba indil ma lo xamne sax warul ci man warul ci man sax ma wut ko warul ci man ma am ko wa suñu borom jox ma أصبت قبل من خلوني بددا فديتني ربي بسر وهلا سستاني إهداك بولا رفت ما ثار لي وما بتن